oo mos mu dellu see neex dellu si waat yow ba nga woo ci dëkkandoo yee woo ci am di jàmm yee alima ñuul sàkket xeer ba cay dal da cay dal yaa jàppale barke démb démb tey soog a ñëw salaamaaleykum kontaan naa sama seex bi kontaan naa kii sama cousin la ça va bien merci beaucoup maa ngi noonu. dama faa dama. ma jël jël si biir kontaan bi quoi. merci beaucoup. ah kontaan naa sax wala seet. barke El Hadj Malick kontaan naa lool sax. ah. incha allah ñu joxante rendez-vous rek. le 28 waaw comme bi passé sol woon nañ ba génn. ñu waaye di tëdd. Saara Ba ñoo lingeer laa. ñi dëkkatu bool xobit lay wutee. bul gëstu lu metti lingeer nga. lingeer nga. ñi dëkkatu bool xobit lay wutee. bul gëstu lu metti kàttubu boo bit lay liggéey bul gëstu lu mété liggéey lu doom am nu ko gërëmee yaayam moom moo sonnoon kenn fekk ko fa lu doom am na ko gërëmee baayam ndax barke baaya koy jox doom jabaaru mu sembay nee ma naam eewoon sakkir xër ba cey daan cey dara alima ñoon soppiku fii ak fii happy birthday to you bés bu dellu si nga woo ci dëkkandoo yi am di jàmm yi nee naa la bu am na ko gërëmee yaayam moom moo sonnoon kenn fekku ko fa lu doom am na ko gërëmee baayam ndax barke baaya koy jox doom jabaaru mu sembay nee ma naam eewoon sakkir xir ba cey dande cey daru alima ñoon soppiku fii ak fii happy birthday to you bés bu dellu si moo nga woo ci dëkkandooy woo am di jàmm yi naa la bul summiku sa jikko ji solal na la ak siiri may ne maanaam laay li ngeen naa ay waa ñett dëkkatu boo xobit lay mujjee bul gëstu lu metti li ngeen Palestine ak buñ bilaal ak buñ Palestine lépp mu dellu si moo ne lépp mu dellu si moo ne lépp mu dellu si moo ne Aliou Maman Mbaye lépp mu dellu si waaw loolu moo koy ñaan sama doom ju baax yow xam nga bi ma woowee ci yow dama ci sawar lool ndax danga baax danga yaw danga boy te nag ñii la bëgg kenn ku ne bëgg ku ne la bëgg te ñii bi ñu def nii tuura moom ko yaay ku baax a noppal doom ku baax a noppal yaay alima doon danga baax. ak li ñu laal ak li ñu basi bés bu dellu si woone bés bu dellu si woone bés bu dellu si woone ay mama dam ay bés bu dellu si waaw loolu mooy sa ñaan sama doom ju baax yow xam nga ne bi ma woowee ci yow dama ci sama boor ndax dangaa baax dangaa yër dangaa boole te la ñii la bëgg kenn ku la bëgg ku doon doon suuf la rek pour ñii li ñu def nii ci la mën ko yaay ku baax a doo bëri doom ku baax a doo bëri yaay Alim do do ba yaay ba yaa ba bëgg may kaay kaay sama waa ji di woon ñu ci maanaam man la mille quatre quatre de deux. dëgg la quatre vingt trois laa ko xam xam xam. te ba tey bàyyi may na ma dama yemaat may na ma dama euro bi may na ma dollar may na ma xaalis takkal la ma xool su mu jëm yoon la bëgg ko la wax ko sama sëñ maa bëri te sama yaay di sama bàjjen. parce que Sëriñ Tuuba amal nañ seen càmm ne dañuy jógee ba wàllu borom dara awa ci sa yaay ak suukar nekk naayam macha allah. dëgg la amiin waay. jërëjëf. say joyeux anniversaire à la sister Alioune suñu jigéen suñu mag suñu xarit suñu royukaay di référence waaw di kontaan ci yow di loo xamal jàmm saa su ne surtout Lamane Ndione ak ci man comme ni koy waxee di kontaan ci yow di loo wax amal jàmm bës bi nga koy dund ay ati ati at loo bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ñu ngi kontaan ci yow trop taxawaay bi rafet na sister famille Ndione ñëpp la bëgg macha allah àdduna ñëpp la bëgg di la ñaanal la jàmm ak salaam yàlla lafal la cat. kontaan ci yow mag ji kon love happy birthday again enjoy taalibe sëñ Babacar la sama alima alima moom taalibe sëñ Babacar anniversaire happy birthday alima njoon bu sëriñ si yal na yàlla jàmmal de la part nag di soxna Ayda euh, soxna maam jaara Buso tabaarakallaahu maam jaara mu baax moomu moo wara lii lépp yàlla na yàlla teral la bu ñuy xëccoo rus ku jël ngalam doo perte may sa dawru mbaay su may tukkee yow laay àndal alima dama uy dama laa dama alima jon alik ma dojom ma ñaaw lu la te daago firiyu juwaalu géej naa ko daan jël tey ma di la joobe alik ma njoon yi ma mujj